benn bi moom je pense que euh, ça parle de Lat Dior Damel du Kayor vie des combats lii c'est le héros du Kayor mais bii peut-être moo jara wax réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté doyen yow yaa ko bind maa ko bind waaw man de yi man de moom je sais que daal toutes les institutions internationales mm. qu'elles soient africaines ou multilatérales européennes ou c'est des institutions à réformer dans le mode de fonctionnement parce que c'était des institutions lu si ëpp créées après la guerre. pour lutter contre la pauvreté. pour bon pour lutter. contre oui, pour pacifier pour lutter pour contre pacifier. la euh, pauvreté pour. pour pour la relance économique après la seconde guerre mondiale et tout. mais malheureusement c'est des instruments de gouvernance soit très lourds. parce que kii xam na lu may wax des fois un projet BAD rien que la formulation ça peut te prendre trois ans. te un maire. il n'a pas trois ans pour formuler un projet. Mm-hmm. yooyu noonu des fois benn benn la ci goulot d'étranglement beneen bi da ngay ñëw léegi on beaucoup d'institutions commencent à. internaliser leur procédure de passation en acceptant suñu code mais bu njëkk ba da nga doon am procédure BAD procédure banque mondiale te yooyu c'est des procédures plus lourdes plus compliquées donc les décaissements day yéex donc il ya a à réformer effectivement bu fekkente ne on veut lutter contre euh, la pauvreté le sous-emploi le chômage e que de plus en plus le monde devient de plus en plus on a de plus en plus de pauvres mhm. de plus en plus de de chômeurs ça veut dire que les mais c'est la raison de des institutions de Bretton Woods bu ñuy wax les institutions de Bretton Woods voilà lan mooy seen njariñ mais mooy loolu ñuy jàppale ba léegi ñoo ñoo gën a nekk ci pauvreté parce que hmm? peut-être parce que peut-être ñoom nu ñu leen jàppale xam nga tey jii je donne un exemple il certains projets doo dem BAD doo dem Banque mondiale parce que ñoom dañ leen naan bokkul si hmm. seen ligne non c'est compliqué ah c'est compliqué xoolal xoolal Bachir suppose je donne un exemple rek xoolal banque islamique euh, de développement ñëw di ñu wax ni dafay financer ay sociétés pharmaceutiques pour Covid-19 man leen écoutez nous on nous avons un problème multiséculaire mooy le malaria moo ñu gën a indil ay problème te li muy rey Covid du ko rey est-ce que doo leen investir ci malaria ñu ni noo ñoom ci euh, Covid la ñu bëgg investir